anciens de l'école 2, par l'initiative de certains qui ont pu créer un, un panel où les gens vont se retrou retrouver pour discuter. On en pensait aussi être utile à notre ancienne école qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et particulièrement à un homme de, euh, retenu parmi les enseignants de cette école-là, qui a, eu, qui a été, disons, le deuxième directeur de l'école et qui s'appelle Cheikh Ndiarem Gagne. Alors cet homme-là, on a voulu lui rendre hommage parce qu'il Nous prions pour que la l'accueille dans son paradis et que le paradis soit sa demeure éternelle. Maintenant, nous avons la classe où presque nous sommes passés tous. Euh, et c'est cette classe-là aussi qui servait de direction pour lui, mais également de pratique, parce qu'il était enseignant pratiquant, il n'était pas déchargé à l'époque. Alors cet enseignant-là, il a tellement fait pour nous que nous avons pensé qu'en réhabilitant la classe, nous devons aussi essayer de lui rendre hommage. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous voulons formaliser l'association et continuer à soutenir l'éducation de façon générale, mais également particulièrement euh, l'école par euh, laquelle nous sommes passés. Et aussi demander à ce que ce, notre action puisse faire tasse d'huile et que vraiment tous les anciens des autres écoles puissent aussi penser à leur ancienne école. et euh, faire de même, faire en sorte que nos enfants puissent trouver un cadre agréable pour étudier dans les meilleures conditions. Je que l'école ne doit pas se limiter seulement à l'instruction. Mais comme on parle d'éducation et de formation, nous pensons que la meilleure école d'éducation et de formation, c'est d'abord la religion. Toutes les personnes qui sont façonnées et qui aujourd'hui connaissent ce qu'on appelle la bonne attitude, ces personnes-là vivent leur Euh, disons, qui marquent, je parle de toutes les religions hein, monothéistes, ces religions la sont les seules capables de façonner, en tout cas de, euh, de livrer à l'être humain les comportements qui lui permettent d'avoir ce qu'on appelle la bonne attitude. L'éducation religieuse, c'est bon parce que nous ne devons pas seulement nous limiter à l'enseignement préceptuel. Ça veut dire que si on parle de renforcer l'éducation, ça commence par la famille. Parce que la religion, elle doit être vécue depuis la naissance jusqu'à la mort. Maintenant, il faut donc que la famille fasse son devoir par rapport à ça. Et ensuite, l'école continue. Ça veut dire que nous ne devons pas nous limiter seulement à l'enseignement, mais à l'éducation. Et l'éducation, nous ne pouvons pas en parler si nous, nous, faisons fi de la religion. Il faut que la religion soit vécue dans sa plénitude. Et quand de religion, je parle de religion monothéiste, et particulièrement de l'islam qui la dernière religion révélée par le bon mal ne ñun kat dañ doon jànge fii jànge bi ñu jànge fii nag jàpp ne ñun kat waruñ ne yàcc yàcc mooy lan mooy jànge fii am fi xam-xam jóge fa dem toog nekk ca leneen ñu nekk ñun kat war nañoo am njariñ école bii nga xam ne fi leen jaar ba ñu nàmmtal ñu ba tey jii ñu mën a taxaw sax di wax lu nit ñi mën a dégg moo tax ñu jàpp ne école bi nag buñ koy buñ buñ fay dellu si waat di fa def dara dañuy xalaat koo xam ne ni ñun ñëpp marqué nañu muy Baye Cheikh Ndiarème doon deuxième directeur école bi doonoon tam ab jàngalekat waaye jàngalekat boo xam taalibe Serigne Bamba la ñu yar ko ci diine ji mu nekkoon donc koo xam day yar di jàngale. ba boo seetee comme ni ko ngoom bi di xaritam ñu koy wax Baye Omar Dieng ni mu ko waxee léegi. ne ñoom ñiñ jàngal ñëpp ñëpp a tekki bu ñu waxee ñëpp a tekki nag maanaam ñëpp nekk nañ ay góor yàlla ay nit yoo xam ne ni bu ñu waxee ñu déglu leen te suñu jëfee seen jëfe rafet na seen jëf rafet na. kon jàpp nañ ne donc école bi comme ni nga ko laajee léegi warul yem rek ci joxe xam-xam dafa war a yem ci tàggat tàggat mooy tarbiya fexe ba nit ki am taxawaay bu baax taxawaayu nit te loolu moom la gouvernement bëgg mooy civisme. mais civisme nekkul loo xam da nga koy wax rek mu nekk théorie lu ñuy dund la te li ñu mën a dimbali bañ dund ko bu baax mooy ñu dund suñu diine dundu diine bi nag ñu ngi koy commencé ca kër ga mu yegg ci école ba yegg ci société bi yëpp loolu mooy tax ba suñu gone yi di jàng ñu am mën a am taxawaay bu baax du ñu am xam-xam rek xam-xam bi sànq leen waaye xam-xam buñ ko amee dañ koy delloosi ci seen askan mu nekk njariñal askan wi nekk njariñal réew mi. faru ku diine la defar kon boo sàgganee diine bi surtout ci ndaw ñi. mooy maanaa la ngay jàngale lépp day nekk pënd bu wuri du am njariñ kon nañ fexewaat ba dugal diine ci famille yi dugal diine ci askan wi waaye dugal diine itam ci école yi parce que loolu mooy tax ba nit ñi mën a am xam-xam waaye mën am taxawaay boo xam ne nii taxawaay bu mucc ayib lay doon ci wàllu nekkinu doomu aadama